Hana dosur. bertakhlab Irak. jàpp di di ko marine di ko mar di ko macc mbaa nga di ko compo di ko ngarañ ak a dem ba di ko saf. di ko sam ak a sed. salaamaaleykum sama gaay <clears throat>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 vraiment père père rusloo nga ma torop torop torop torop te man gaay yoon bi ñu jël léegi man dama xamul nu fa demee noonu quoi manam yow da ngay ñëw nga tuumaal nit ki nga sosal nit ki nga kàccal nit ki après nga daw génn réew bi wala buñ la woowee doo indi preuve sawaay instant bi moom nekkul ci réew mi mais lii la wax nee na du nee na du ñëwaat Sénégal nee na du ñëwaat Sénégal pourquoi doo ñëwaat Sénégal parce que da yoroo ay preuve yow yaa ne abbas Fall dafa jël 5 milliards yow yaa wax loolu ñu porter le pelant nga taxaw fa nga nekk fa nga nekk di victimiser wu naan Sénégal dictateur wala nangam non non loolu do affaire dictateur da ngaa tuumaal nit ki da ngay ñëw nga indi ay preuve mais wala moo tax léegi la moo tax daal man daal gars yi di tuumaal nit ñi eh, di leen sosal gratuitement comme ça ah <laughs> baax na yor nga ay preuve doo ko ñëw nga indi ko nga lànk toog fi nga toog. am na beneen jàmbukat boo xam ne moom tamit daw na moom tamit daw na ko ah ñun tamit suñu frontières yi dañ ko war a xoolaat de gars yi dañuy daw rek di rëcc rek comme ça dañu war a toog si réew dañu war a toog si réew mi ñu réaliser suñuy projet ci yéen ak ci réew mi waaw di leen wax ne nag projet bi nga xam ne moom lañ ñëpp doon xaar projet bi euh, incha allahu rabbi dina disponible ci ay fan yu néew fii ak altine bu mu juumul incha allahu rabbi projet bi dina disponible bu ko defee sénégalais yi nga xamante ne nii bëgg nañ xam fan la président Bassirou Diomaye fay jëm ak askanu Sénégal fan la président Bassirou Diomaye fay jëm ak réew mi ak lañ lan lañ namm fii ak deux mille cinquante incha allahu rabbi dinañ ko présenter sénégalais yi di leen wax ne ngeen xaar ko yéen ñëpp waaw boppam du moroomu new voilà te ñenn ñi nañ bàyyi sosalaate te buñ leen woowee duñ indi preuve voilà mu ngi noonu. projet bu bees bi boo ko téyee da nga xam ni moo gën fuuf li waa Pastef wane woon keroog ba ñuy ubbi seen campagne ci coalition Diomaye président diggante 2025 ak 2029 investissement yi xaalis bi war a dugg ñu ngi ko natt ci fukki junne juróom-ñetti milliards yu teg juróomi téeméer ñu ni fukki junni ak benn ak milliards yi ñi ngi xaar mu ci administration publique 261 milliards yi ci secteur privé bi di li PAP bu bees bi nat muy plan d'action bu bi investissement yoy nak 35 qui yi ci capital humain lay dem Manam njàng meeg paj mi 33 ñu def ko ci mi 13 qui ci aménagement ak développement durable 17,7% qui ci bonne gouvernance ak liñ séq ak sunu naataangooy Afrique yi bu dee ci secteur yi ba habitat urbanisme ak aménagement ñoom ñoo ci jiitu ndax ñoom ñoo jël pour cent yi transport jël onze pour cent yi ñu ciy waajal projet yu mel ni raay bi diggante ndakaaru ak Tamba ak beneen projet bu tudd Sea Link war a jaar ci géej gi diggante ndakaaru ak Praia ca Cap Vert agriculture mi ngi ci dix pour cent war a defar ay magasin yu ñuy denc li ñuy bay bu ñoretee ba du yàqu ak ay chambre froide yokk tracteurs yi ak machines yi indi itam ay bassin de rétention éducation tamit mi ngi ci dix pour cent ñu war cee gën a jàppale daara yi wàññi ci abri provisoire yi di mbaare yi gone yi di jànge tabax ci ñaari université Souleymane Niang bu Tamba sante mi ngi ci 6,2 pour cent ñu war cee defar ay ñakk tabax ci juróom-ñeenti centre de santé ak fukki laboratoire ci région yi eau environnement assainissement mi ngi ci 8 pour cent ñu war cee gën a avanceel grande muraille verte lac de ñu yóbbu ko ndakaaru Thiès ak Mbour ba pare waa Touba am ndox muñ naan mu doy bu dee lii jëm ci région yi nag ndakaaru ak njaareem genn wàll gi ñoom ñoo koy jël ndakaaru fanweer yeeg juróom benn njaareem fukki yeeg ñeent Thiès tam fukk ak ñeent lay am Fatick 3 pour cent Saint-Louis ak Ziguinchor 2 pour cent Kédougou moo ci mujj amul lu mat pour cent gouvernement bi nag nee na loolu yépp fas na ko yéene def ba noppi wàññi xamante ne nii fi mu ne nii 73 pour cent la ci PIB bi mu wàcce ko ba 60 pour cent 2029 2029 courant bi day daj fépp réew mi jóge ci 86 pour cent jàll 100 pour cent ndox mi itam day daj fépp réew mi jóge ci 97 pour cent jàll 100 pour cent assainissement di ONAS day jóge ci 62 pour cent jàll 82 pour cent ba tey 2029 projet bu bees bii nag fi mu melee ni lu néew doole dëgg mooy li mu ni déwén dinañ am croissance pour cent ba pare wàññi déficit budgétaire bi mu doon képp moins 3 pour cent ñu gis ko soo koo gëm suba ci alxames yi wala le 7 octobre Ousmane Sonko itam dina wara leral le 7 octobre wala ñeneen ci alxames ji nan lañ def ba jamono ji nga xam dañuy jekk-jekk gis 140 mm ci genn guddi ak lamuy indi ci jëya melni niñ ko gisé ci Touba ak li ngay soxla ci xaalis yépp ci walu fonds d'adaptation nan lañ def ba ci bobu jamono bonne gouvernance ak engagement africain ëpp xaalis buñ ciy def ndax mi ngi ci 17,7% ke ci xeex wàllu phénomène naturel yu am doole yooyu moom mi nga xam ne mi ngi ci 13 effectivement dama déposé plante démb

ñooñu ñoo tax may plainte mais bu doon politique rek du ma du ma parce que ñi ma jàkkaarlool xam ñu ne man du ma politicien boo xam ni politique jaral na ma lu ne. bàyyi tey ak téye la yamale du ma un homme politique comme ces gens là mais sama njaboot moo tax may porter plainte pour que réew mi ñu bàyyi di tuumaal ay gor yu deful dara may wax nag sama gars yi ne leen lii du dara président Ousmane Sonko mii sama kilifa nekk sama leader politique lu ne dégg na ko affaire yu li mu ngi fii

justice amna ci réew mi man ñëw naa ci justice ñom buñ jéem dara ñun politique dañ ko bëgg soppi ci réew mi du xex du xulo déposer na sama plainte yoon dina am parce que li ñu wax c'est tellement grave que ni man de wax deug yalla bu doon sama sago mom bis bu ñu génnee preuve nak ah ma xam li wax deug la waaye nak ah il faut ñu gënné preuve. sax di posé wu la question Abass Fall nan la jegee ñi nga xam te do ACR ba koy tuddu ci mbir yu mel waaw mais xam nga duma dugg ci côté bobu lenn rek moy problème il y a un jeune Jean Michel mon jeune frère am courage jël initiative ne day changer le contrat mu am leneen lu ci xew loo xam ne moom du ma ci wax sama proximité ak Jean Michel kese moo tax li yëpp am amul leneen c'est mon jeune frère et je le soutiens ci li nga xam ne moom la bëgguma nag xuus ci lu bari parce que dafa am loo xam dama ko wax ci biir bëgguma ko génne fii donc opposition bi kay bi koy politiser nag parce que ñoom ah waaw moo tax man leen ñoom dañ ma xamul man je ne fais pas de la politique comme eux bu ngeen xoolee nag publication liste yi borom ndakaaru jip gars sen fi fit tëb na ñu ayca mais Sénégal sopeku na mënatoo yàq deru nit comme ça te indiwoo preuve. bu nga déggee bu baax plainte yi fuk mat na fuk danaka te jeexagul parce que bi may ñëw dama déposer une plainte contre certains après lañ ma yone yenen capture d'écran damay dem dajale ko indi wat ko au niveau du commissariat moo ñu xamni xam nañ leen bu baax a baax mu leer ñu am sen tour am sen liñu liñu bind am sen numéro téléphone am sen photo am lepp donc ñoñu jël nañu risque wax nañu am fit rek ñew génné seen i preuve. kon ñuy relayer li nga xamni ne information boobu nga japp né fausse information bu njëkk si yow ñoñu ñëpp nga daal di euh, boole. mat nañu une dizaine am na yeneen cinq yoo xam dinaa ko indi suba muy 15 ñom ñëpp té dañoo bok ñom ñëpp dañoo bok xamanté ce qui fait que association daanaka de malfaiteurs la.